ngeen jot suñu vidéo wala si biti réew da a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal ay ca mbokk internetu King Production am nañu mbégte ak contentement ñëw fii ci Géejawaay ñëw sax si benn koo xam ne macha allah kenn dootu koo présenté ci biir King Production njëkk na fay jaar. def fi li nga xam ne moom mooy ab vidéo ñëpp naan kii kan la kii kan la kii kan la ma ne leen tey leen te dal ko koy Serigne Ablaye Niane di sëtub sëriñ Touba di taalibe sëriñ tubaab boo xam ne lépp lu mu la wax rek du lu mu for lépp lu mu la wax rek ab xam-xam lay doon boo ko gëstoo ba ci biir lu wér la lu wóor man am naa lu ma ci xam ba tax tey ñu def dérangement que déplacement ñëw fekk si ko waat fii ci këram ndax mbokk internet ñoo ne doyaluñ ci ki nga xam ne mooy sëriñ Abdoulaye Niane tey ñu bëgg a xuusandeeg moom ci waxtaan wu yéeme wu doy waar ci mbir yi xew ci réew mi lu ci mel ni accident yi nga xam ne mi ngi am ah ak dee yu gaaw yeeg balaa yi waat ci lan moo ko waral faru rab yi ñi nga xam ne am nañu ay jëkkëri rab ñi nga xam ne am nañ ay jabara rab ñi nga xam ne seen i wërsëg dafay tëju du mën a ko benn yoon buntu bu ñu fëgg mu daal di tëju Serigne Abdoulaye am na ci li nga xam ne mooy saafara ñu xuusandoog moom te waxtaan Serigne Abdoulaye ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu internet bi maa ngi leen nuyu di leen siyaara di nuyu képp kuy dégg sama kàddu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu sëriñ Abdoulaye ñëwoon nañ fi ak yow amanda benn yow waxtaan woo xam ni mën naa ni diire bi gars yi nee nañu doyaluñ ci ba tax tey ñu bëgg fee amalu ak yow waxtaan waxawa yaa lool lool lool lool sëriñ Abdoulaye fi ñuy njëkkee ak yow mooy mbas mi nga xam ni moo am ci réew mi ñi ne nañ ab feebar la ñi ne ab balaa la ñii ne ay musiba yu wàcc la ginnaaw ñun yàlla may ñu ab vision ñu mën koo gis Mm. yéen ñi fi yàlla teg te ngeen war a doon ñi ñu war a wi mm. lan nga ñu mën a wax ci mbiru mbas mi fi wàcc waaw feebar dama xam naa ne bëri na mm-hmm. ngi di ku ku di wax mm-hmm. naa nag euh, natt bu yàlla wàcce moom ñëpp la ko yemale lu mm. Sénégal kese fépp fu doomu adama nekk rek mbas ma presque mën naa ne e-, egg na fa mm-hmm. waaye nag réew mi ngi nekk muy Sénégal dañu am ay baax am ay aada yu baax mm. ay culture mm. lu mel ni bi mu fi wàccee mm. ku ne yaa ñaan yàlla tegg ko waaye nag euh, war nañoo dellu tuut gannaaw xoolaat suñu bopp xoolaat suñu jëf euh, wàññi jëf yu ñaaw yi bu loolu paasee nag euh, ku ci nekk nga ñaan ku ci nekk ñaanal mm-hmm. bu kenn xeeb sa ñaan mm-hmm. ndax gémmiñ gu yàlla def barke kenn xamu ko mm-hmm. waaye bu loolu passé itam am na itam ay muslaay yoo xam ne fépp foo xam ne mbas wàcc na ko doomu aadama bu ko defee yàlla mën na ko musal ca mbas ma am na ci yoo xam ne danga koy liggéey boole ko ak suufu jumaa euh, kër ga ku ca sangu dina bokk ca ñe nettali mbas ma da bokk ci ñi ko ñi ko nettali. maanaam am na ay muslaay yoo xam ne. Mhm. Serigne Abdoulaye ñaan mi ngi moom. Mhm. képp koo xam ne contacté na la. Mhm. ñëw seet la. di nga ko jox ci muslaay yi mu boole ko suufu jumaa. suufu jumaa na yàlla di muccalee jumaa ci nit ñu bon ñi. noonu la lay muccalee ci mbas mi. loolu de defe naa ne gën naa leerati de. ni naan <coughs> ni yàlla di muccalee mbaam ci tabaski. Hmm. nga xam ne xar du manqué <laughs> xar du manqué manqué manqué ba kenn xalaat jënd mbaam yàlla dana musal la ci mbas mi ba bu ëllëgee nga bokk ci ñi koy nettali nga naan mbas mi amoon na fa de bala ci jël ndax hmm. am na fi jël loo xam ne bi ñu delloo King Production gis nañ suñu a a baax <laughs> waaye nag loolu dafa am solo parce que damay wax ne euh, tubaab yàgg na fi waaye nag fajum tubaab moom yàggul yàggul déedéet fajum tubaab yàggul am na am na faj yu fi nekkoon yàgg-yàgg muy xeetu arxuraan bi mm. xeet sunguf yoo xam ne maam it moom la daan jëfandikoo kon médecin bi mu amee léegi bu matee téeméer mm, kon nag maam ñi dañ daan dund lu teg te ñun sax fi mu ne nii pour gis dund téeméer at sa problème la ah, bu amee itam bëriwul boo ki déggee benn ba nga déggaat benn dina yàgg mm-hmm. ah, léegi nag li maam yi daan jëfandikoo nag ba daan dund téeméer lu teg mm. ah, ba tey jii ñun amuñu lu ko tane parce que li fi nekk nii ñi ñuy faj na dëgg la médecin moom ñu ne yàlla may na leen ci wàllu saayir hmm. waaye mag ñi daw dem hôpital te te naan at yu bëree bëri bëri hmm. kon nag il faut que daal te bañ a jël lépp rek def ko def ko ci fajum tubaab hmm. ndax man dama ci am client yoo xam ne day nekk kilifa ci wàllu uh, àdduna bi waaye bu ñu waree ba feebar sax bala ngay dem hôpital sëriñ la ñuy a dem ñi ñi ci kaw moom ñu bari xam na ne. sëriñ moom. dañuy ñëw ci yéen. ngeen wax leen ndax feebar bi. mun nañoo dem hôpital. wala munuñoo dem. hôpital. Mhm. ndax am na ñoo xam ne bu bu bu tëddee hôpital duñ jug dama yàlla baal. Mhm. waaw am na ñoo xam ne bu xëy tëdd hôpital duñ jug. dama lay dog foofu am ci lu ma dugg ak yow ndax loolu doon na lu ma ñor léegoo léeg nit feebar. Mhm. nekk ci kër. dara du ko dal. maanaam yàlla du ko moom. Mm-hmm. mais da ngay gis ni dugg na hôpital. dugg na bolog du dellu siwaat ci biir këram. Mm-hmm. directement armeel ya lay doon mm-hmm. ndax loolu day am luy gëlëmal ay mbokkam gëlëmal ko moom ba ñu gis fajum hôpital ba dugg ak moom biir hôpital ñu jël ko wala xam nga euh, euh, dafa am yoo xam ne neexut wax ci neexut a wax ci ci euh, télévision waaye junju am na waaw kalbun am na am am na om bi nii. dama hmm. yàlla ba jégal ma. man léeg-léeg nit ñi ci di ma sant yu mel noonu ci ci nit ñi xam. Hmm. waaye yu mel noonu soo ko defee nit bu feebaree mën naa dem hôpital yàgg fa lool ba pare xelam dem mukk ci sëriñ parce que nit bu la liggéeyee dëgg-dëgg sax sam xel mooy doo xalaat sax dem ci sëriñ mukk doo xalaat mukk mukk léegi nag say mbokk nag bu ñu amee bu ñu amul ndimbale yàlla mën na laa yóbbu fii ba États-Unis nga nga dem fa yàgg fa am fa deux cent quatre ans cinq ans ñëw ba tey doo mën a wér mhm. dangis koo xam ne dañ koy njabar muy faj ba sa mu faj ba sa mënta wér ba mu noonu la mujj ñàkkee bakkanam te ñu bëree bëree bëri ci ci ci nit ñi gëmatuñ sëriñ waaye nag ñi ci kaw moom am na ñu ma ci xàmmee ñu ngi may dégg ñi ci kaw moom ñoom xam na lan lan mooy sëriñ ñoom am na ci yoo xam ne yàggul bët démb rek dama ne ko woon ah bi bi bi soxna si ñëwee ma ah xëy na yàlla mën na dogal balaa affaire bi jeex mu génn fa mu nekk ñuy def suñuy ñaan rek waaye ñi ci kaw moom xam nañ sëriñ am na waaye ñi suuf moom dañoo dajeegut ak waaye ñi ci kaw xam na waaw sëriñ Abdoulaye yaa ngi woon ci lu ama ama amam solo mu bëgg ñu xaw ci yaatal tuuti rek mooy li nga xam ni mooy ndax nit kon mi ngi jóg di dem ci doomu aadama hmm. uniquement pour yàqal moroomu doomu aadamaam uh-huh. kon léegoo léeg nit ay mbiram tëju uh-huh. wala mënta am jëkkër wala uh-huh. mënta am jabar wala lépp lu mu nekk rek day àndandoo sax ak la mu fekk si daal di yàqu kon nit dinay teg moroomu doomu aadamaam loolu waaw waaw laa ilaaha illallaah rasulullah uh, nit ku bon moom bu la ba nit ku la bëggul moom da yàlla yàlla musal ci ay ci ay pexeem rek ndax ni suñu doon lañ daanaka ñaar boo ko bëggee uh, boo bëggee mu dof ndox na koy liggéey jox ko xar mu dof mu naan ko soo bëggee mu tawat du jug mukk am na da nga koy liggéey xool xool benn mala nga nga def ko benn trace mu xam ne maam day gaañu nga jox ko mu naan ko mala bi fekk mu ngi dund rek moom day dund waaye mala bu dee rek mu faatu moo tax nit ku la bañ moom yaa yàlla mu may jug ci yow rek hmm? waaw te sayit nga am gàllaaj ban nag ñoo xam ne dañoo siiw ni ñu xam leen dem ba yàgg ñu fay te nit nit ñu koy sampe noonu lañ koy fawee noonu lañ koy fayee waaye lépp rek da fekk ma da fekk mu ànd ànd da fekk mu ànd yàlla ànd ci te yàlla dafa maandu ndax maandu yàlla moo tax nga jël paaka jam nit yàlla yàlla toog di xool hmm. yàlla mu sàcc bu du raw la su mu sàcc bu raw jëri yàq na law mooy yàlla waaye yooyu yëpp nit da nga koy def muy jàpp yàlla di ko xool te day xam ne yàgg-yàgg dañ ñëw ci ñoom moo tax nag boo siiwee nii wala nga nekk ak ak ay nit gis na jubluwun la wala nekk ci benn benn famille xeex yi bari li nga war a njëkk def mooy fas yéene mus musal sa bopp ak sa njaboot ak say doom ndax nit ku la bañ moom yàlla ci yàlla musal hmm. te def lu bon dafa gën a yomb def lu baax euh, bu ma duggee ci wàllu <coughs> xam-xam bu ñuul bi hmm. boo jëlee fii poqe poqe poqe hmm. wëtteel na bu ñu raw nii am naa nga jël ko raw ko am amee jat yoo wax tufli ko ci jël ay xal wàq ba mu xóot nga suul ko ci biir bàyyi ko fa fekk hmm. doom bi ngi tàng ko kooku yaramam day tàng rek bu fekkee ni nit koo xam ne sànni ma yàlla baal ma ci kàddu gi hmm. da ngaa jiite société wala ay jiite ay nit boo amut ndimbal yàlla dara dara dara dara dara dara dara <coughs> doo doo tàggoo mettu ay fu ma jëm moom ma daal de ndax mboolem noob yi ñuy def yi ci ëpp lu ñu sëf doon. ngir nga moo tax foofu fekk ku jiite mbooloo rek. day pour mu tàggoo métti bopp da jafe ci moom. te du nelaw du xanaa day fekk moom nga lay dëgg rek. Mm-hmm. moo tax yooyu yëpp boo ci nekkee nag jiite ay nit wala nga nekk ci àddina bëgg avancer wala nga bëgg a réussir wala nga bëgg a romb say nawle daal. Mm-hmm. il fokk nga nga am ñaan yu baax ba pare ngay ñaaw njortu. Mm-hmm. waaw ndax nit sax dana la bëgg a def lu bon sax jaar ko sab xarit. ci lu leer man na ma yàlla baal jégal ma ci kàddu gi. nit topp na nit ba dem ci restaurant ba muy lekkee pour waxtaan ba restaurant pour jox ko li mu koy jox pour bu fa ñëwee di lekk mu def ko ci la muy lekk. ah ilaaha pour feebaram restaurant bi pour mu nangoo jël jël mbir mi def ko ci li waa ci li waa ji lekk ndax sa sa suur fa lay gën a reer. Hmm? Mm-hmm. moo tax euh, nit ku la bañ. Hmm. yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla ñu daal musal rawat na jamono gi nga xam ne maanaam sëriñ si bari nan sëriñ si bu ne bu dee fukk juróom-ñaar ñëpp lu bon lañ gën a mën ci lu baax juróom-ñaar yëpp moo tax koo gis daanaka ñu liggéey ko pour mu dañ da jafe parce ñi lu bon lañ gën a jàng que xam ne nit ñi léegi bon lañ bëgg sëriñ su bari léegi lu bon lañ gën a jàng dama yàlla baal léeg-léeg ngis ko xam ne yaa biir biir bi néew yi di néew rek kooku kooku ñu ngi kooku service bi ñu am lu ñu liggéey de ko ci biteel euh, teg ko ci naaj léeg-léeg ñu yëngal ko ñu gësamee na day mën na sa buti dañ koy yëngal hmm. yàlla bu nekk koo xam ne nag dafa tibb sa tànk wala wala mu am am sa yére wala mu am sa dàll moo tax pour nga gis nit ku siiw nit ñu xam la nga dem ba yàgg dund lu mat ay at yu bari lu néew la boo ko ci wanee benn doona ñaar doona ñaar ak leer aha yàlla bu la daaj ci guy nag boobu mooy daj dëpp ga moom dafa que guy dafa am loo xam ne benn garab nga ko budul budul moom guy képp nga ci bu amul sens doo gaaw réussir wala boo doo gaaw boo feebaree doo gaaw jug waaw. waaye koo xam ne tey Serigne Abdoulaye jóge na fii dem ba Mali fay ngir benn maam jaara ngir ñu daaj ko ci guy ga maam jaara dem na fu ne mën ta faju mhm. ndax. bu ñëwee ci Serigne Abdoulaye. Mhm. fañ ko daaj ci guy gi. Mhm. ngir ay mbiram taxaw ndax bu boobaa Serigne Abdoulaye am na ci saafara. Euh, moom moom bu ko neexee sax dañ koy delloo. dañ koy delloo ko kaka su fekkee ne bëgg na dañ koy delloo. Ah. waaw su bëggee càngaayal ñi càngaayal néew la ñu wut buñ ko bëggee bu fekkee bëgg na ñu delloo ko ko càngaayal néew la ñu wut boole ko li ñuy liggéeyee jox ko mu mu taal ko. mu dellu ca kakakale. waaw. sëñ Abdoulaye ndax nit mës na sol ay dàllam ñëw ba sa kër génne xaalis bu bari teg ko ci taabal ji ngir nga faatal ko nit ndax yow dund nga expérience boobu noonu. yaakaar naa la ma dund bu motu juróom-ñaar li ko manqué du bari. allahu akbar. ba ci élection yi jàll rek élection yi jàll ni député ñi ñi ñi nekkoon candidat dañoo am bopp de la ilaha illallah. élection yi nii. élection yi jàll. élection ko ku ko amul bopp doo ci bokk. boo boo boo xoolee mboolem ñu doon posé candidat ñu ci bëri ñu ñu ñoom ñu ci bëri faatu dafa am gàllankoor yoo xam ne boo ko amee même boo nekkee ministre wala député boo amee nii lépp lu ñëw ci yow ñi la wër ku ci amul sens mooy dem na ma yàlla baal ñi la wër ku ci amul gàllaaj bu mbir mu ñëwee mu moom la yóbbu moo tax mbooleem ki koy ànd ak kilifa rek war nga di war nga di bàyyi xel bopp. parce que fi mu toll nii dama yàlla baal te jégal ma fi nii am na accident yoo xam ne mënu maa wax sax lépp waaye tey ji am na boo ko boo ko jëlee monti poq lañ koy liggéeyee nga jël ko fas ko ba pare ji wut bégg na kéwal nga nga def ko li nga koy def jël mar teg waxtu yi ndax waxtu rek bu fekkee ne mu ngi tali mu ngi tali waxtu rek ñett yoon tépp du egg boo dóoree rek ci ci bopp lay dal moo tax ma ne la yàlla na yàlla musal ci noonu bon te loolu lépp nit ñaa ngi koy def. laa ilaha illallah. est-ce que koo xam ne sa forum day jàng ba am diplôme bu matam bu mag a mag a mag xam yoon xam droit am exporteur ba pare def def soog. waaw jaaxal na ma. ko dama sala xam nga atom ba safee tàkk. Hmm. am na am na xam ne làmmiñ du ko tudd. ba ko waxee rek nit ñu bari da leen da leen jaaxal ba nga xam ne làmmiñ du ko tudd mais mboolem koo xam ne. kilifa nga walla ngay. waaw parce que dal na fi Cheikh Amar bu yàggul. dafa ne làmmiñ du ko am ñoo xam ne làmmiñ du tudd. waaye nag. mën nañoo lim daa fekk mbirum mbirum mbirum télé la. mbirum télé mu mën doo wax lépp waaye yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree yàlla la ndax yàlla moom ku mën a seetaan la. Mm. dama ne yàlla moom mooy sàcc sàcc bu dara jëri yàq na la mooy yàlla. daa maandu daa looy def rek da lay xool ba nga pare yaa ngi bon da lay encouragé nga jàpp yaa ngi ci lu baax. da lay encouragé sax waaye da lay xool xam nga tey jii boo amee sa kër. Mm. sanc ko say doom na ci biir def lu leen neex yaa ngi ci bunt kër gi. lu mu yàgg yàgg daa nga leen jàpp. adduna bëgg liggéeyante liggéeyante leen ndax yaa ngi ci bunt kër gi duñ génn kër nag ak àddina bi ni mu demee nag. yàlla mooy sàcc bu raw jëri yàq na law te léeg-léeg nit na def nit dara ba nga yaakaar ne yàlla mu fekk yàlla am na yàlla dafa maandu. waaye li ëpp solo ci waxtaan bi mooy nit ku nekk rek moo xam jigéen nga wala góor wala nga nekk ci bitim réew du liggéey wala nga nekk ci biir réew mi sa bopp ndax nit da nga bokk nit ndey ak bàyyi sax la yéen a jàmm dama mm-hmm. benn bàyyi bu sañoon nga dee kiñaan gi amoon ci yent yent jamono yent yàlla Yusuf jàpp ko dóor ko ca teen mu nekk xale bu ndaw jàpp ko dóor ko ci teen bi ngir bëgg koo rey ngir lan ci ngir bàyyam nee na ba bàyyam wax na ko ci gént gi ne ko yow da nekk ab yowante doom baay yëpp daal di complot waaye ñun nan la ñuy def ba bare Yuusuf parce que kii bu ëllëgee su màggee dana ci suñ kaw kañaan googu amu ci doomu bàyyee nag tey la gën a raw. ci suñ xam ne daa metti da am ay doom yu bàyyi laa la wax nii li ma wax waxuma ko ngir ma ko wax ngir nit ñi ba ngeen nalaw ndax man ay nit dañoo ci man ñoo xam ne dañoo am seen doom baay ndax léeg-léeg dañ lay gëm la ne sa doom baay bi liggéey fekk liggéeyu la